Ah, dëkk bi doo dee xam yow amoo liggéey amoo métier luy sa njëriñ si dëkk bi kon yow amoo njëriñ si biir dëkk bi doomi aadama da nga war a am njëriñ fooy dund nga njëriñ sa gox njëriñ sa boppa njëriñ sa ay waajur foo romba ni ñuy wax ne skey waaye doomi aadama waroo nekk si gox boo xamante ne da ngay lor nit ñi luñ sàcc rek même boo ko sàccutee ni ñi yëpp seen xel si yow la moo dem ndig diw sa moo fi nekk mooy tuxkat bi mooy naan sàngara mooy jël couche mooy naan dina mooy jël lii ak lii lu fi réer rek ñëpp si yow lay dem doomi aadama war ngaa moytu lool war ngaa bàyyi sa lool ay waxambaane yu ndaw ñoo tax diine bi mu àgga ba fii nii du ay mag de ay waxambaane yu ndaw wax nañ la ne Abubakar ni Siddiq bu mu doon si lislaam ataam amul 38 years Umar bu mu doon years Ousmane bun Affan bu mu doon jël l'islam mu ngi tati foo years Ali ibn Abi Talib dee bu mu doon jël kalima shahada mu ngi eleven years old yonent bu mu doon génn dem Makka ne ko ne yow Ali sama raka demal tëdda sama néeg nga xaar ma foofu xale bu ndaw moo dem tëdda foofu noon dem xaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekka yonent bi génn na ak Abubakar ne Siddiq di dem Madina kookooy waxambaane dëgga kookooy niti yàlla dëgga bu ñu war a root niñ kooku ñooñu lañ war a rooy ñooñu lañ war a yaakaar si ñooñu lañ ko war a jëlee waaye di ñoo xamante ne ñu ngi ñooy isil ay drogue si biir jamono ji fii nii Gambia amatuñ future suñ waxambaane yëpp ñu ngey jëflante koo taay taay bi defatut gaay dara sàngara bi defatut gaay dara isi nañ fii beneen drogue boo xamante ne dañ koy wax ne gaaw gaaw defatut nit ñi dara gaay isi leneen boo xamante ne ñu ngi koy oo couche aw am ñoo xamante ne ñu koy ooyee gine baas mu ngee doomi réew mi yëpp te suñ nguur baa ngee toog di leen seetaan luy njëriñi nguur bi confétier yaa ngee jaay kuus ñu la yóbbuwee police sa mag bu fi nekkee si nguur bi dañ lay bàyyi nga ñibbi nga ñëw si kër gi boo ñëwee nga commencé di dóor sa dena man suñ ma ñëwee damaa ñëw man du ma yaaga place wallahi billahi tallahi bu fekkente ne yow yaa ngee liggéey si nguur bi pour roy pour lor doomi gambee nii nga xam ne yàlla def la koo lajte waxtu daa jot nag képp ku ne nga sàmm sa boppa nga sàmm sa ay njaboot nga loo xamante ne da war a jëf dañ ko war a jëflante ko boo faatuyee yee sa kanam bii nii ñu ngi koo jëflante ko doo si mun a wax baat doo si mun a teg baat yow luy sa njëriñ nga nekk borom kër borom kër boo xamante ne sa biiri kër mooy yaalang faa nekk doo ko ñu mën a nettali doo ko ñu mën a wax nit ñi te doo ñu mën a wax xale yi ne bu leen def luy sa njëriñ si kër gi nga faatu sa mooy gën nga dund te sa dund bi du amul benn jëriñ bokk jullit yi ay waxambaane dañ am taxawaay yu bari ci biir diine ji yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax na ay xissa yu bari si alxuraan bi waaye waxambaane yi seen yëf yëpp na ñëw na si alxuraan bi bu dul ñetti yoon aw ñeenti yoon mu ngi wax ay waxambaane mu ngi wax ay waxambaane skey di leen tàgga di leen fonk di leen gërëm ana ñun waxambaane Gambia yi luy suñ même interview yu nekk di dox nii si jamono ji soo interviewé jigéen yi ne loo gis si waxambaane gambien yi dañ laa wax boo interviewé waxambaan gambien yi ne jëbe gambien yi naka lañ mel dañ la koo wax boo leen laajtee ñaata woykat kan moo gën a sopp si woykat yi yëpp ne diw sangam laa bëgg si woykat yi yëpp moo ma dee frig buñ la ne woyal benn woy si woyaam yi nga woy ko buñ ne ñaata pilas moy lislaam xamoo ko te yow doomu muslim nga julit nga ñun fu ñoo feetoo moo taxit ma leen ne Gambia amuñ future ñu nekk si nguur bi buñ fu jógee kan mooy toog ndik amatuñ yaakaar si kenn waaye même ñu nekk si nguur gi ñoom ñooy tax nit ñi di deflante koo drogue bi si jamono ji fii nii waxaneexul rek boo waxee diw sangam ne man la moo wax te man waxuma kenn de dëkk bi nu ñoo mun a sàmm dëkk bi mu dem si kanam drogue buy dugga fii nii couche buy dugga si fii nii Liberia la moo jógee ak Sierra Leone naka la moo dugga fii ay boodala la ñu ne Australie foog nga ñëw Conakry jógee Conakry nga ñëw Sénégal jóge Sénégal nga dugg a Gambia boo buggee dugg a Gambia nga jaaree Mandatoulagne wala nga jaaree Welingara ñëw sabi dugga léegi drogue yooyu noonu naka lañ duggee biiri yooyu noonu naka lañ duggee fii ida ñuy liggéey seen liggéey xamuñ seen liggéey benn ñaareel ba wala gars yi gis nañ ko dañ leen jox xaalis gars yi noppi si mooy ñaar amut ñetteel yow ndig sa poos mu fees loolu rek nga xool waaye xooloo Gambia luy seen njëriñ téeméeri at bu ñëw fu nekk la da ngay gis fii koo xamante ne dañ ko teg pour wàllum diine mu aar nit ñi mu sàmm nit ñi mu won nit ñi dégg buñ ko joxee xaalis day topp baanee xam bàyyi diine bi lu ñu santaane loolu am ci Gambia fii loolu lu mu fi amee keneen tamit yaakaaree ko feneen am na foofu yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla musal fitna yal nañu yàlla aar aar suñu njaboot yi yal nañu yàlla teg ci tarixal mustaqim yal nañu yàlla aar aar suñ waxambaane yi wallahi waxambaane yi ñooy réew ñun waxambaane yi ñooy réew mi waxambaane yi buñ baaxee wallahi téeméeri at buy ñëw jamono ji day baax waaye waxambaane yëpp buñ bonee nga xam ne réew mi amul future yal nañu yàlla musal seetaane